Aminata Lo moom nekkoon fi euh, ministre euh, si gouvernement libéraux yi euh, bu yàgg yàgg sax ndax moom bu ñu seetloo si magistrature Abdoulaye Wade mi nekkoon na fi ministre yu bëree bëree bari moom nag ginnaaw bi nga xamante ne moom le président la république Macky Sall dafa teere lépp loo xamante ne moo di ab génn ginnaaw bu vingt et jotee rek moom nag mu daal di génnoon ànd ak benn magam rakam bokka bu góor génn di doxantu ji nag pour dem jëndali benn doomam lu mu daal di ndekkee suba bu xëyee ndaxte dafa waroon xëy teel teel a dem jàngi ji moom nag Aminata Lo loolu la xamle ba mu génnee nag dajeeg gendarme muy wokkaam yi nag dañ na ko niste daal di koy jàpp yóbbu ginnaaw bañ ko jàppee yóbbu nag moom ñu ba a tàng di leen di yóbbu ginnaaw ba ñu xamee nag ne moom sax ministre la fi woon ñu daal di koy bàyyi mu ñibbi wante rakam bu góor boobu noonu ñu mujjee ko faa bàyyi mu fanaan moo Aminata Lo bi mu xëyee nag gis ne situation bi dañ ko xaw a privilégié rek mu daal di fas yéene dem ngir rek récupérer ji rakam jooju noonu ci gendarmerie bu Wakaam ginnaaw ba mu demee sa gendarmerie bu Wakaam ma naka nam andi fa ay trouble naka coow la jukk ngir rakam jooju noonu moom naka mi ngi xam ne naka ne lii xew nii yëpp naka Macky Sall la rek ndaxte ay politique moom moo tax mu daal di def lu ni mel la ngir rek fexe nu mu ko yàqalee ndax li mu àndut ak moom gendarme yi nag gisee wuñ ko noonu ndaxte jàpp nañ ne kii moom non seulement dafa daal di gàkkal li nga xam ne moom moo di règle bi ñu teg ngir wàllum couvre-feu bi beneen bi tamit jàpp koo xamante ne ab agent la bu nekk ci ab fonction lu bon jaaw lu jaarul yoon ci kawam nag loolu moom moo tax rek ñu daal di koy jàppaat nag moom yóbbu ko fële ca kaso ba daal di koy tëj moom ak rakam ji góor ji le bu dee situation bi nag bu soppeekul nag moom ginnaaw suba ci lënd bi si lañ ko fas yéene defeere rek moom ak rakam ji góor yi ca parquet boobu noonu ca tribunal de grande instance bu Ndakaaru Ndiaye jël Diop. qu'il y a même pas de maladie pour voler des milliards. Eh, ça, ça, ça fait caution. 3000 francs, il n'y a pas de pension. C'est bonheur là. 3000 Non, il n'y a pas de caution. Caution de 30 francs, moi, je l'ai payé. On m'a pris. Je, je ne reculerai pas. D'accord, un bien de temps. Demain, tu me convoques. Ça va, oublie une Ça va, Bon, on fait, on fait, 30 francs. Ça, c'est quoi La caution, c'est combien Togal dal, xaar yi. Yéen man maa leen di xaar yéen. Non, ki la ko yónni. kenn yónni wu ko. dañ koy yónni. waaw man faale wu ma Macky Sall. Macky Sall dugal kii kii maanaam dugal. waaye bàyyi ma waay. dugal fay caution 30 francs man amul caution. caution bi 3000 francs. je te le jure billahi wal kitaabi demain vous me verrez ici man ma dara waaw ce Macky Sall ce voleur de merde. cet imbécile. waaw et je maa ko wax man. jël micro enregistré ma nga wan nga mu dégg ma. c'est un imbécile. waaw yow vous nous traînez dans la boue. tëdd leen nelaw vingt heures yeewu leen six heures du matin. mais pourquoi. sàcc cinq cent milliards la bëggaat. sàcc suñuy milliards il a volé un milliard million de milliards.

je ne me laisserai pas faire di ngeen bëgg da bëgg scandale di ngeen am waaw y a pas ma yóbbu prison wala ma génn prise de parole y a waaw vous allez me mettre la grille waaw waaw vous ancien Sénégal c'est vous de la merde Vous ne nous respectez pas. Moi, moi je paye 3 000 francs. Vous ne nous respectez pas. Moi, je paye 3 000 mi ngeen di joojal. ñun li ñu def ci réew mi Macky Sall def ko. moi je paye 3 000 francs. waaw. eh mais c'est pas gentil. président nag daa allé se faire foutre. man su ma demee. j'en ai rien à foutre de Macky Sall. Macky Sall nag daa se faire foutre. waaye yow. yéen ba me laisserai pas faire damay jàmmaarloo ak yéen. lii booy laaj. ay yow. condamné lu tax ñu téye ko te li tax ñu téye ko nit ñaa ngi wax nag ku ne ngi wax ku ngi bind mais nit bu demee ba amul bu dul benn doom nga bëgg koy dugal ak doomam police doom bi jooy la muy wax teyu ko politique lépp c'est de l'intelligence en mouvement soobu ci xeet bi noonu ñu ngi organiser ñu ngi avertir suñuy responsable coordonnateur départementaux yi ak suñuy militant ne leen lu nekk rek bu wër ba jotee na ngeen ko wane dañu am stratégie souterraine ba nga xam ne dañ ko wax du duñu xeexee ni ñu gars yi di xeexee de duñ ko def mais am nañ suñu moyen amuñ problème ak Macky amuñ problème ak régime bi ñun ñu ngi liggéey waaw moom moom elle se porte bien xam nga dañuy def erreur ci Aminata Lo lu tax Aminata moom elle se porte bien mu ngi ci jàmm dem naa fa tey waxtaan nañ y a tous les militants partout ñu bokk nag partout ñëpp a ngi koy kii